ma am nag benn kenn koo xam ne benn kilifa ci réew dama ko laaj. ma dem ma seeti ko waxtaan ak moom ma ne ko mais yéen politique bi ñooñu c'est des acteurs politiques ay hommes politiques dëgg. Mhm. ma ne ko mais dëkk bi ni muy doxee nii lan nga ci xam jeunes yi dañu commencé yeewu te jeunes yi am na loo xam ne dañoo bëgg képp képp kuy changé parce que dañoo bëgg dëkk bi dox dëkk bi jëm kanam. mu ne ma wax nga dëgg mais xamaguma ku ngay ñëw ma ne ko jox da ngeen di ñëw yéen acteur politique yi à chaque fois da ngeen di ñu ñëw amassé kii gars yi jël mais après bu campagne wala affaire passé rek presque ñëpp isee jeunes yi sax pour ñu gis leen c'est un problème alors que ñu ñi li leen war a ñor mooy gestion naka la ñuy gérer lu tuuti ñun li ñu am pour pour génn pour pour cee génn mu ne ma dinaa la conseiller benn affaire mu ne ma li ngay def nii c'est vrai que yow yaa ngi ci engagement citoyen mais li ngay def nii politique la fi ma ne ko ah bon mu ne ma woo mu ma politique commencé na ci li ngay def par sa ma ne ko qu'est-ce qu'il fait mu ma nag soo gisee acteur politique yooyu ni ñuy doxalee c'est parce que ñoom politique kese la ñu jàng mais nag ku bëgg a dem ci bay defar sa sa sa sa gox mu ma loolu dañ koy jàng ma ne ko mooy lan mu ne ma da ngay jàng gestion publique ma ne ko ah bon ma le ministre Benoît Sambou ministre Benoît Sambou mu conseillé ma loolu ne ma da ngay def gestion publique nga xam ne ñaari di nga ko mën boo téyee ressource di nga xam ni ngay gérer sa gox nit ñi aussi di ngay xam ni ngay jëflanteeg ñoom ak ni leen di gérer ma commencé yéewu commencé xam ne kon ñee benn